c'est que Sénégal dañ dul wax dëgg bu ñu waxee dëgg rek Sénégal ngay Sénégal, ku dund ba am 60 ans mu sa am 1 million. mais loolu c'est honteux tey boo demee Guinée pëlfutoo yu ndaw yi am nañ 1 million nga dem Côte d'Ivoire jaay ko soleil yi am a 1 million. mais Sénégal ngay ñëw fekk fa un grand gaillard mu dund 80 ans mu sa am 1 million yu dajalee benn place moo formation bii ñuy wax nii moom année bii ñuy jëm y a beaucoup de formations jeunesse ici au Sénégal euh, euh, dans l'Afrique ici. parce que mënoo di dund di si sonn di sonn di sonn di sonn di sonn di sonn ba am 60 ans amoo dara boy bu ñëw koy commencé sonn bu la gisee bu gisee formation bu ko mën a jox 3 milliards léegi taf-taf da ciy dugg pauvreté bi moo leen ciy dugal parce que doo fekk sa papa doon pauvre sa mag doon pauvre nga ñëw bëgg a doon pauvre da nga dugg ci formation ne neri boo gëmul yàlla dëgg amoo ngëm-ngëm dëgg ak taxif dëgg dëgg dëgg ci formation bi ngay di dugg xam man dama gisul gars yi rek. mais dama leen gisul rek mais yàlla na ma yàlla bu def ba du ma leen gis ne xam naa moo leen gisee moom mooy milliards yi daanu la <laughs> waaw parce que je suis fatigué léegi boo juddoo ba am 100 ans mu soo am 1 million am booy bu judd ñu ni ko booy grand bi paa bi mu soo am 1 million bu gisee ku ko mën a jox 10 millions léegi léegi te mu defal ko ay affaire day jël 10 millions yi man waxante dëgg ñàkk ngëm gi dafa mel ni l'islam dañuy xeex parce que man pauvre ni ah, rek moo amul un million ah mais chrétien day am un million mais musulman doo am un million boo gëmee yàlla doo am doo am dara non loolu lool loolu la loolu la tëddee noonu la affaire bi tëddee boo nekkee musulman daal aji muñ ngay doon non non boo nekkee musulman aji kuy muñ kese gay doon boo deewee li ñu la sàngee sax dañ koy takkale nga doon farmason wala chrétien nga bari la lool. nga de ñu garé carbo yaayeeg ñu sa yaayé yépp taxaw non jamais yalla bu ma tassé ak ñom mais dama ni la ma ngi yërem sama doomi ak sama sët yi ñu waja a ñëw man rëccina parce que ma nek na mag ba mënatuma jaay sama life ngir ay affaire àdduna mais sa boy yi di mag ni nga xamni xamagu ñu dara mais bu ñu màggee gis ni yow mi pa bi musoo am 1 million bu gisé sëriñ bu leen jox 10 million dañ ci duggu wa lolo tax ñu dem ci gaal yi di dem barça ak barça xamuloo man mi demoon naa ci gaal yi mais ba gaal ga toje man li ma ci génne ba ma taxawaat tefes gi di wax sax yàlla rek la barki serin Touba